di sangub sang yi yéen di njiital donga yi am ngeeni ndam tey ak ëllëg seenub sëriñ tey moo fi gën gannaawam it yéena fi gën moo gën sëriñ si yéena gën nag seeni kem bég leen bég lii pàggu sax mayewu ko ite ju réy mayewu ko pexe mu réy mayewu ko mbay du mayam nawet bu jag ku yàlla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci donga yi nga xam ne ak baaxama nag yéen a gënub sëriñ ku ne yéen a murit ku ne sëriñ bu nekk xam na ni yéen a gënu nitam bu dog asaka daala ki sarax la donga daa boole di jox ab sëriñam te di ko wax sëriñ bi maaka mata yëg bennub sëriñ musulaam ku koy joxug jur ak mbiram lu dul sëriñ bi ak ñoñam ku wedd lii mata alak sëriñ bi daala masaam ku koy joxug jur ak mbiram di aw ndigal di wut ngërëm di boole guddee ki bëccëg jomb ko ngir def na lu kenn deful te daj na it lu kenn dajul ba ñaw ñuy door a jóg ku jóg di daw dootoo ko jot ku war fas dootoo ko jot ku war saxaarit doo ko jot fa mu ne yàlla ko fa teg ku wax lu dul amul moroom te fa mbiram jébbal ko moom aw ndigalam def ko boroom yàq na fen runge teg yàlla na nu boole nun yërëm faw te may nu ngërëmam fegal nu ak mooy digalam teg nu ca kaw tey ak ëllëg yal na nu boole nun yërëm faw te may nu ngërëmam fegal nu ak mooy digalam teg nu ca kaw tey ak ëllëg woote yi wuute ne lool ak wuute nag du fi jóg kuy wuy ji nay seetlu kay wooteeg la muy woote woote yi wuute ne lool ak wuute nag du fi jóg kuy wuy ji nay seetlu kay wooteeg la muy woote kuy def lu yëngu nga jóg luñ sos nga tàbbi ca biir doo teewlu doo teeylu mbir moo dégg dem seeti ku wut barab beru fa sos ay mbiram yemu fa yor wërsëg ak xel mu rëy nag tàmbulee woote di netti liy xëy bu tey wax ay ngëneel yu mu yor farmeg wilaayaam ni day sel boo ko yàqaate yorug njabar mbaate ay gàllaaj yu ñàng te xor tey wirdu sulmaani yoo kay laal ci baatuuta ñii ñett koy wuy ji muy ndaw lu amul kilifa ak waaju tey bokkam ak ñay wër di muslooti mu dal leen defi dag ñu wër ko nag di ko jay yaa man di wag doo moroomam muy jayar looti alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala wa ashaabihi ajmain mbokki jullit yi mbokki lislaam mbokki taalibe fi daje yépp ginnaaw bu ñu sante suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi kilifa gi sëriñ Murtada suñu boroom tabaraka wa taala gën koo dëgëral ba ay mébétam mu yeggale ko ci darajey sëriñ bi ñu ngi siyaare mbooleem bokk yi fi daje yépp bàyyiwuñu kenn di ñaanal ki toog toogaayu cheikhul xadim suñu borom tabaraka wa moom it may ko mébétam yépp ba mu yeggale yéeneem yi ci darajey sëñ Touba ginnaaw loolu mbokk yi xam naa ni ko sëriñ Abdul Rahim sëriñ Abdul Karim waxe léegi rek boo xasee dugg ci sa biiri bokk moomatoo sa bopp waaye yittey jamono ji ak xat-xat yi moo ñu gàllankoor ba daanaka dañuy feeñal suñu yéene waaye du loo xam ne sax waaj nañu ko teewul nag jot naa ko bu yàgg ndax ca ba koy tàmbali rek lañ ma woo wax ma ko waaye bis bu set nga nekk ci yitte yi ak uh, xat-xati jamono ji waaye lu ci mën a xew loolu lu neex a waxtaane la ndax mbokk muy waxtaan ak i bokkam loolu lu yomb la al uxuwa fil islaam loolu ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne mooy doxiinu lislaam waxuma sax doxiinu lislaam waaye organisme yi gën a rëy muy muy nizaam yi nga xam ne moo nekk awlal aalam nga xam ne moo entouré monde bi ñoom ci seen bopp fawu ñu bokkoo ànd doog a mën a def dara tubaab yi ci seen politique ak seenu mbon ci waxtu wi ñu dikkee ci Afrique te bëgg am dëgg dëggi li ñu bëgg dafa am benn politique boo xam ne moom lañ décentralisé te moom mooy li ñu def intishar a daawa al istimariya te loolu mooy tasaare colonialisme bi nga xam ne moom la ñu soxla woon ci biir afrik mooy dañoo diviser mbooleem askan yi dañ leen a séddale ngir sampu seen nguur ak bokk waxtu woo xamee ne xaajale nañu ko rek am li nga bëgg ku ñuy tuddee luqumaanul xakim ñenn ñi jiiñ nañ ko yonent ñenn ñi nee nañu du woon yonent waaye nitu yàlla la woon dafa yabal doomam ngir mu dem jàngi xam-xam luqumaan yabal doomam mu dem jàngi xam-xam mu def fa fukki at ak juróom-ñett bi muy ñibbisi def na at ci yoon wi muy ñaar fukki at bi mu ñëwee mu xamal ko ne ko jàng naa ba xam naa li ma war a xam lépp nee na luqmaan xëy ne ko dama bëggoon nga dem wëral ma àll bi boo xëyee ba jant bi soo nga dellusi te loo fi gis nag ma ko wax nee na bi doom ji jógee di wër nee na dafa njëkk a gis am ñàngoor moo xam ne day génne ci biirum pax wala ci biirum lëm dem fori waaye bu dellu see du mën a tàbbi nee mu continuer di dox gisaat na ñoo xam ne mënuñoo xuus ci géej mënuñoo xuus ci ndox mu tuuti waaye nee na ña ngay maatale ña ngay ña ngay ña dox na leen neexee di romb géej gi di jàll nee na nis tuuti it mu doxaat gis euh, koo xam ne ma nga taxaw ci benn barab waaye la mu yor mënu koo joxe nee na mu wëlbatikuwaat nag dellusi ci baayam li ma ci ñor rek leen rek la nee na bi mu ñëwee la ko jëkk a nettali mooy jaan ji nga xam ne day génne ci pax waaye du mën a dellu nee na mu ne ko loolu laa njëkk a gis mu ne ko loolu mooy kàddu gu ñaaw gu génn ci làmmiñu jullit dal ci mbokkum jullitam kàddu googu bu xasee ba génn munta dugaat mu ne ko gis naa ndox mu bari nit ñaa ngi koy xuus di jàll ma gis ndox mu tuuti waaye nit ñi mënuñoo jéggi mu ne ko ndox mu tuuti moom mooy bokk yu booloo te ànd lu ñu tuuti tuuti kenn mun leen a ñaaj ndox mu bari moomu nit ñi di ko xuus di jàll mooy ay bokk yoo xam ne ànduñu wal xiyaasu billah ay bokk lu ñu tuuti tuuti tuuti tuuti bu ñu bu ñu dajaloo te ànd lu ñu bëgg a tëral ak lu ñu bañ bëgg a doxal mën nañu koo doxal ma bi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala def ci ak bokk du diw jur diw jur diw jiw déedéet du loolu xikma bi mooy ñu am li ñuy tuddee ak tafaadul baynakum baynahum maanaam mooy kenn ku nekk jéem a nekk meilleur ci wàllu jaamu yàlla mooy nga gën sa moroom yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min dakkarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qaba'in li taarafu waaye inna akramakum inda allahi atqaakum suñu borom nee na daleen leen bind def leen ay giir ñii doon ay pël ñii doon ay naar ñii doon ay séeréer ñii nàngam waaye la ko ëppal solo moom yàlla tabaraka wa taala mooy ragal yàlla gi nga xam ne mooy am mag ñi ci seenu mbaax ak ni ñu toppe woon sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxoon na fu baax baaxe rek foofa la daw jëm loolu misaal la ci du càggi ne la ñuy bàyyi dafa doon lu bon déedéet waaye ñoom dañuy am maru xundooñ li ñu tuddee maru xundooñ xundooñ dañ koy am ci seen diggante ak seen borom tabaraka wa ba nga xam ne lépp lu ñu gis ne lu baax la duutuñu ca ànd ak seen sago dañuy daw rek wuti la loola misaal la ci seex Muhammadul Xaadim yi tey ak sëñ Bay Jaxate radiyallahu anhuma fa mu bàyyi ko lépp nga fa xam-xama nga fa njuba nga fa baaxa nga fa leera nga fa lépp nga fa waaye mu xam ne mbokkam la mi ngi ci barab te mel na moom képp la fa dégg mu dem mu dem soutenir ko ndaw topp ko ànd ak moom foofa ànd ak moom ca liggéey booba ba keroog ñuy am ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala loolu mooy ak bokk loolu mooy ak jaxasoo gu rafet loolu dara nekku ci ci li ñuy tudde ak taassub amul benn benn benn xajjalikoo bu am ci loolu mag ñi doonuñu woon dund li ñuy tudd tarixa mag ñi li ñu xamoon mooy sunna su leer lañu xamoon ak njub gu set loolu la mag ñi xamoon waaye tariixa ñoom xamuñu ko woon boo gisee ñu tudd tariixa mooy dañu ko tudde mu nekk ay université islamique yoo xam ne kenn ku ci nekk fa nga nekk di fa jàng di fa def di fa jëf loola mooy moo tuddoon tariixa ci ñoom mu doon seen sóobuwaay seen diggante ak seen borom waaye kenn ku nekk ci ñoom xéeboo woon sa moroom ca la mu nekk ñàkkaloo woon sa moroom fayda ca la mu nekk fu ci xam-xam nekk amul kenn ci ñoom ku rëy a jóg dem toppatoo ji ko foofa ba na mar na war a sottee ma sotti ko xam ngeen ne suñu maam xaali radiyallahu anhu wa ardaahu bi sëñ Tuubaa di dem ci moom di defari arut xam ngeen ne booba bu fekkoon te ne day gis ne xañ na tariixa la wala nangam la mën na faa bañ a dem ndax baayam xaadir la woon mi ngi woon ci beneen mbir waaye teewul ànd loolu lépp mu am souplesse intellectuel boo xam ne moo ko permettre moom sëñ Touba mu jóg dem ci maam Xaadi radiallahu anhu wa ardaahu ngir defar fa arutam bi ci biir loolu yi gis ngeen sëñ Saalihu ci boppam sëñ Touba ci boppam moo jël sëriñ Saalihu jëbbal ko sëñ Mor Saasum Jaxate radiallahu anhu wa arda ngir lan ngir mu defaraatal ko xam-xamam kon mag ñi xamuñu woon amuñu woon frontière ci ay tarixa wala ay nangam waaye li ñu xamoon mooy mbokkum jullit mu di jullit te ak njullitam wér ak njullitam wéree rafetlu nañ ko beneen bi ci desit mooy lislaam kenn du ko kenn du ko frontière maanaam kenn du ko wutal ay xuduud mbaaxuk suñu borom gi it kenn du ko wutal ay frontière jàpp ne mbaax gi lépp ci benn barab képp la nekk loolu ba tey erreur la jàppit ne mbaax gi bi mu nekkee ci benn barabit ci jënn jëmm képp la nekk loolu it erreur la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa nee na suñu boroom tabaraka wa taala denc na ci ay secret yoo xam ne xamalu ko sox yontu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon laa siyamaak ñeneen ñi nga xam ne ay nit lañuy ñu yuy xeñtu mbaax ngir bëgg am seen borom tabaraka wa taala yàlla kenn xamut ci moom lépp ay aïchatu umul muminin radiallahu anha keroog bi yonent bi di ñaanee ñëw mu bari lool ay werante ci biir Makka ak na ngir gis na yàlla wala gisu ko aïcha àdduna ca kaw ne ku wax ne yonent bi gis na yàlla waxul dëgg suñu borom tabaraka wa taala jëmmam ji kenn du ko gis laa tudriku al-absaar suñu borom dara mënu koo gis ndax li ngay gis mooy li nga xam ne dafay nekk ci benn barab nga mën ko naturaliser mën ko viser teg ci sa bët waaye suñu borom tabaraka wa taala sëñ Tuubaa jàngal nañu ci tawxiid nee na loo xalaat ba yaakaar ne yàlla noonu la mel suñu borom tabaraka wa taala wuute na ak la nga xalaat laysa ka mislihi shay'un suñu borom amut nenn loo koy misaale kon kenn mënul gis suñu borom tabaraka wa taala mag ñi li ñu xamoon ci secret ak i ndàmb kenn xamut nu mu toll waaye fu ñu mas a déggee lu baax xam ne nii lu baax la te mi ngi ci seen mbokkum jullit danañu jóg dem wuti ko foofa du ñu jóg mukkit ci defar ak bokk ak wax lu baax du ñu yàq derub jullit mukkit fu ñu toog seen derub mbokk du fa yàq suñu borom tabaraka wa nee na bu leen di espionner seen mbokki jullit kenn ku nekk di taxaw ci kanam nit naan xañ na sama waa ji ma fii barki démb yaakaar naa ne kër diw la jëm ah bi mu àndeeg diw xam naa ne derub diw ci la nekkoon su nee na wala tajassasu bu kenn espionné moroomam wala yaqtibu ba'dukum ba'da bu kenn jëw moroomam jëw mooy tudd nit ki ci loo xam ne nekku fa yàqu deram suñu borom bi mu koy misaal ne lan mooy jëw sa mbokkum jullit yàlla nee na mi ngi mel ne sa mbokk mu faatu ñu teg ko ci jaat sàng ko ñépp di yuuxaloo nga ŋàbb sa paaka daw ne xaar leen ma ñu xaar la nga ñëw ne dindil leen ma mbalaan mi ñu dindi nga ne dagg leen fa gën duuf jox ma ma lekk suñu borom tabaraka wa taala nee na jëw sa mbokkum jullit noonu la mel ay yuhibbu ahadukum an yakula lahma aqihi mayitan fa karihtumuhu ndax kenn ci yéen bëgg naa lekk yaramu mbokkam ginnaaw bi mu faatoo bañ leen ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam misaal na ko ci kenn nit ku ñu rey ci Madina koo xam ne dañ ko raj mu lu mu def mooy nee nañu bàyyi na soxna dem njaaloo mu dikk déclarer boppam maanaam jébbal boppam justice loolu du am solo la maanaam def nga erreur nangu ne def nga erreur saxaaba yi ñu baax lañu woon wax nañu ne bi mu ñëwee déclaré boppam yonent bi ne ko damaa bàyyi soxna ba noppi njaaloo yonent bi wuyuwu ko fa saasa waaye nee nañu bi mu waxee loolu kenn ci saxaaba yu mag yi jël na ko ba soreek moom ne ko demal nga tuub te jaamu yàlla ndax lii ngay wax lu garaw la waaye ci mbaaxuk saxaaba yi <coughs> ak ni leen yàlla mayoon ci ragal yàlla conscience du tranquille mu dellu siwaat déclaré waat boppam yonent bi kooka dellu ko woo waxaat ko lam ko waxoon kooka dellu ko woo waxaat ko lam ko waxoon waaye conscience am mu dellu waxaat ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi wax ne ko nañu la yóbbu ci barab dugal la ci teen sànni la ay xeer ba nga dee mu ñëw jébbale boppam ñu def ko noonu ngir yàlla li ma ci amal solo mooy bi mu defee loolu ba noppi yonent bi salaay dafa jóg nag di doxantu ci waxtu timis am ñaar ñu topp ci ginnaawam di jëw kooku nga xam ne dañ koo rey ah moom de dafa ñàkk fayda moom li mu def mënoon naa dem rek kenn du ko xamal dara suturaal boppam waaye dem jébbal boppam justice ba ñu def ko noonu mënoon naa ñàkk yonent bi di dox ba yegsi ci meddu mbaam bi mu yegsee moom sallallahu alayhi wa mu taxaw ne leen yéen ñaar ñii lekk leen ci medd mii kenn ku nekk xool moroomam mu ne giñ naa ci ki nga xam ne sama ruux mi ngi ci loxoom ne ngeen lekk ci meddu mbaam mii moo gën fuuf lii ngeen di def te kii ngeen di jëw gis naa ko ca aljanna muy diri ay mbalaanam ci aljanna nga gis ne nangu dëgg lu am solo la waaye it jëw <coughs> ci say bokk lu bon la te léegi lii nit ñi gën a mën a tiitaroo mooy que a gën a mën a yàqub der moo yaakaar ne moo gën a nekk ci dëgg la nga wax ak sa mbokk ci whatsapp mu doon secret balaa am jàmm vocaux yooyu dana ko jël transmettre ko ay nit ah sa waay dégg nga li mu wax ah, jël naa la PV de jël na ma PV de lii la ma wax de boo ko defee loola doon loo xam ne secret la woon ñu jël ko tasaare ko yàq ab daram nit ñi tey it suñu borom tabaraka wa taala dañuy wax ne al aalimul quyub sattaarun lil uyub sëñ Tuubaa ko wax nee na aalimul quyub sattaarun lil uyub nee na ki xam li yàlla nëbbu kooku mooy ki gën a mën a denc secret suñu borom tabaraka wa taala waaye ki nga xam ne lépp lu feeñ lu mu xam ci balaa jant bee so day mel ne ginaar yi gës ci biiram balaa am jàmm da koo yëgal ñëpp fenn fu nekk dana fa tàppe dana fa tàppe numéro whatsapp diw whatsapp diw whatsapp diw ah diw de jox laa ko diw nee na nangam diw nee na nangam loola lu ñaaw la du defarug bokk te da koy yàq day du defarug ànd te da koy yàq même groupe whatsapp yi ngay gis nga xam ne ay bokk kese koy samp nekk ca ngir bëgg lu am na ci ñoo xam ne waxtu wu ñu gisee benn vocal ca biir danañ ko jël transféré ko fu ne waxtu wu ñu gisee dara mën nañ laa jël PV ci suuf waaye dem na ba nit ñi léegi kenn nangootul sax far di whatsapp li ñuy def mooy woola appel normal appel normal bi doyatut ndax léegi appel normal bi am na ñoo xam ne dañuy lëpp dañuy dañuy dañuy dañuy télécharger ay logiciels yoo xam ne booy wax dañu lay enregistrer bu ñu noppee dañu koy transférer fu leen neex pourcentage ci ay kilifa pourcentage ci ay boromi alal yàq ay der loolu yi àdduna jëru ko kon ak bokkoo ci lislaam mooy nit ki wóolu mbokkum jullitam te teg ko fam ko war a teg te bañ caa xool kii mooy dëkk fële wala moo dëkk fële jàppante te suñu borom tabaraka wa taala rek tax kon loolu rek laa amoon ci lu ma ciy tënk maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu boole ñu defal tawfiq te may ñu ñu yàgg ko fekke te mboolem li nga xam ne moom lañ ci nisal suñu borom defal ñu ko ci taxawaay bi rafet na bokk gi rafet na ñëpp kontaan nañu yàlla na suñu borom tabaraka wa taala boole ñu defal ndimbal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين wa ala alihi wa ashaabihi hudaatil mayaamiin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin in alhamdulilahi nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruhu wa natuubu ilayhi wa na'uudu billahi min shuruuri anfusinaa wa sayyi'aati a'maalinaa man yahdihillaahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu di siyaare kilifa jotaay bi taw nuyoo boobu ñu koy jël jaarale ko ci loxol sëriñ Abdul Karim Jaxate ñi nga xam ne tey ci boole gi ñu boole ci jotaay bu barkeel bu sell bu mag bu duun bii bañ mën cee am taxawaayub jottali ci genn kàddu ci moom la ko yàlla jaare ñu jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu joxal ñu ko mbooleem mbokk gépp ak fu waay mën a bàyyi ko ak fu waay mën a nekk nuyoo boobu it ñu jiital ci laytaay ni sëriñ Muntaxa Basiir di ñaan sunu borom mu sàmm ko te dëgëral ko ba mottali mbooleem yéene yi mu yéene yépp ci lislaam yàlla sàmmal ñu suñ kilifay diine laq leen fu yàq yëggul xalit képp ku jóg di nasaxal lépp lu diine ame ci barkeb sëriñ Tuuba mu mel ni jotaay bi riis na lool buñ ko dee xool ndax riisaayu jotaay du doon ci quantité bi mais ci qualité bi lay doon tey lan moo taxawlu ñu ne dañoo daje ngir fàttaliku menn mag ñu ne ah njabootuk sëriñ Muhammadul Qadi yi ñooy fàttaliku ñu ne déedéet kooku kay kon murit yépp a war a fàttaliku ndax yàlla dafa def niti yi penku bi dañ gënoon mag ñu njëkk waaye nun dañ leen gën mag ñu mujj te loolu sikki sàkka nekku ci ñu am ay xudwa muy ay royukaay yu mag yoo xam ni war nañ tey ñu fésal seeni bind seeni jàngale seeni doxin ngir société islamique bi mën a xippiwaat yëg ne dara ngi fi ndax tey li ñuy tuddee ñàkk foo sukkandiku ñun Sénégal mënuñoo dal li ñu mën a dal kay mooy dummóoyu li ñu am waaye lépp lu ñuy jëggaani lu nekk rek daje na fii ci ñun kon tey buñ nee dañuy def makaarimul axlaaq li koy firndeel tey man mi toog euh, sëriñ Mouhamad Qaadi moomu ay version rek lañ ma ci envoyé waaye suñ ma envoyé version yooyu danaa ci mën a sukkandiku ndax magi réew mi benn càllale lañ woon boo xam ne ku leen jàngal rek ñu dellu ci menn mbir te sëriñ bii di sëriñ ma dikke yàlla na ko yàlla dëgëral euh, confirmé na ko ci ay euh, kàddoom euh, fa tabaarakallaa ñu bëgg a waxtaanee lu ñuy tuddee makaarimul axlaax makaarimul axlaax mooy lan buñ ne makaarimul axlaax kon xam nañ ne safaan ba am na jikko yu tedd boo bëggee xam jikko yu tedd nag da ngay xam lan mooy nit nit bi ko suñ borom bindee dafa composé ñaari éléments yoo xam ne bokkuñ fu ñu dëkk bokkuñu natiir bokkuñu lu ñuy def bokkuñ lu ñu gëm bokkuñ lu leen di dundal te lépp da cee jublu wane kéemtaanam te mooy dafa jële ruu ca kaw ca malawul anda ruu doon leer doon lu sell doon loo xam ne ci kàddu yàlla ci lay dunde mu indi ko ci suuf boole kook yaram yaram moo xam ne ci suuf la ko mooñe mu jaxasoog suuf di dund ci ak xaywaaniya ak bànneexam ak lu ko neex mu boole ñaar ñooñu composé leen ñu daje ci benn bërëb ngir yàlla sant leen benn mission ñu war koo doxal ab diir dem wuy jiwaat ko mu rendre compte kon mu mel ne diggante boobu yaram war a lëkkaloo ak ruu te yaram moom bànnee xam la xam akum naflaay ruu nag leer la xam ak kàddu yàlla borom bi nee na ala bi dikrillaahi ma innul qulub ci turu yàlla ci la xol yépp di dale kon ruu moom ci turu yàlla lay dale waaye yaram nag ci lekk ci meññeef yi ba suur di noppul waxtu wu nekk ci lay dale yàlla daal di jël ruux wut ku koy dimbali jël yaram wut ku koy dimbali te ki leen dimbali kenn la kon mooy seen intermédiaire te mooy xel xel moomu mooy tax mu mën a togg jëf doomu aadama kon ruux mi ngi dunde ci leeru yàlla yaram mi ngi dunde ci liy meññe ci kaw suuf ndax suufay naturam waaye xel nag mi ngi dunde ci xam-xam ndax moom mooy intermédiaire bi wara a lijjanti diggante ruu ak yaram liñ séq ba kenn du gaañ moroomam xel moomu nag dafa laaj ñu am lu ñuy tuddee comme moom mooy mooy yor ordre de mission bi te mooy mission bi yàlla sant doomu aadama ci kaw suuf xel mi moo koy téye yàlla day yónni ay yonent yoo xamante ne ñooy communiquer ak xel moomu moo tax lislaam du nangoo togg jëf ko àndut akum xelam yonent yooyu su ñuy ñëwit dañuy am ñaari grade dañuy am garaat bu ñuy tudde nubuwa am garaat bu ñuy tudde risaala grade bi ñuy tudde nubuwa mooy diggante bi dox seen digganteeg seen boroom ngir mu jox leen xibaar yi ñu war a indi ci kaw suuf loolu mooy nubuwa ji waaye grade bi ñuy tudde risaala nag mooy discours bi war a bàyyi ko ci ñoom dem ci nit ñi leen yónni ngir diine ji mën a leer ci ñoom loolu mooy risaala gi su ko defee nag moo tax nubuwa war risaala ñu leen di xaaj ndax am na ñoo xam ne amee nañ nubuwa bi maanaam am nañ communication directe ak suñ boroom waaye yàlla yebalu leen ci nit ñi ñooñ la ñuy tudde annabi waaye am na ñoo xam ne dañoo am communication bi te war koo indiwaat ci kaw suuf ñooñu la ñuy tudde annabiyu wa rasul comme muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko ko sëriñ Tuubaa waxee wa nabiyu wa rasulu wal xalil wa huwa al habibu wal imaamu wad dalil su ko defee nag comme noonu la yàlla binde doomu aadama léegi doomu aadama kon yonent bi bu ñëwee lan mooy mission defe naa lii ma ci bëgg a joxe sëriñ Touba waxoon na ci ak sëriñ Mañaaw Silla sëriñ Mañaaw Silla bi mu dajeeg sëriñ Touba daf ko ne Mañaaw noo def ak téere bi yàlla bi mu ne ko xanaa jekk ko lool te di ko jàng te di ko jàngale sëriñ bi ne ko téere bi ñaata maska moo ci nekk ñu déglu bu baax wu ko ñaata ci ay maas ñoo ci nekk waaye def na ko ñaata maas moo ci nekk bu ne goon ñaata ci ay maas ñoo fi nekk xëy na mu doon ay junni junni waaye ñaata maas ka moo ci nekk sëñ ma ñaaw ne tekk daan ne ko kon de nañ ci ak leeral mu nekko ko yatti maska yi rek ñoo ci nekk muy maska ak yat ak maska ak néeg ak maska ak lonk ko ma ñaaw mu ne ko yàlla bi muy yónni yonent yi masque ak yat taxu leen a jóg ndax fekk na leen ñu jub koccu te jub dong la yàlla bëgg ci ñoom ndax saalikal kitaabu laa rey rayba fii hudan daan ne ko yàlla yit bi muy yónni yonante bi masque ak néeg gi taxu leen a jóg ndax ñoo ñooñu yàqu nañ ba noppi ndax naa sawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum laa yuminuun boo yónnee du ñu gëm boo yónneewut du ñu gëm gëm mënta ne waaye kan moo tax a jóg yonent bi mooy masque ak lonku gi daan ko seytaane it masque lonk gee ko tax a jóg saytaane lan la bëgg loolee cay lonk mu gën koo lem ba mu tëjee doon masque ak bokk ca groupe bee waaye yonent bi lan la bëgg loolee cay lemu mu jéem koo jubbanti ba mu jub bokk ca groupe bee mu ne ko xëccoo bi fii la nekk kon loolu la ñuy tudde tarbiya te ci la makaarimul axlaax di ubbi ko mbokk yi suñ ne makaarimul axlaax mooy lan kon makaarimul axlaax danañ yëg ne mooy jikko jikko nag suñ ko waxee mooy lépp luy répété ci nit moo xam lu baax la wala safaan loolu la ñuy tudde jikko loo xamante ne nit a koy baree def bu dee lu baax a ñu ne ah lii de jikko ju baax la bu dee safaane yi ñu ne ah lii de jikko ju bon la waaye jikko mooy luy répété wu ci nit nañ ci bàyyi xel nag répété wu gi ndax nit dafa man di juum léeg-léeg mu def benn mbir boo xam ne du doon jikkoom waaye njuumte la wala ay pression moo ko ciy yóbbu waaye su fekkee nag lu muy répété wu la di ko di ko répété di ko répété bu yàggee dañuy gëm ne nag lii jikkooma bu dee lu baax noonu bu def safaana noonu yàlla yit bind nit defe naa foofu rek laa yem sax ci exposé bi ndax euh, exposition bi parce que war na maa dugg si directement ci thème bi waaye yii dafa mat a leeral ñu soo a dugg ci thème bi yàlla dafa bind nit it ci jikkoom man di soppi ko waxtu wu nekk olof day léeb-léeb boo xamante ne soriwut léeb bi léebu bëgg a yaafusloo nit ñi la damay wax ne ñaari léeb a ngi nii war nañ koo lem benn bi day yàq addina benn bi day yàq diine mooy jikkook boroom ba ci pax boobu bu xóotee rek yàq diine kon lan mooy rôle sëriñ si fi ne woon bu doon jikkoog boroom ba ci pax kay kon nañ bàyyi ñëpp ñu doxee nañ war a doxe déedéet loolu wérut ak njariñ loo fekke cala bii de yàq addina bii de yàq diine ni yàlla bindee doomu aadama daf koo bindee mu nekk ci mbindin woo xamante ne waxtu wu nekk lépp a mën a ko ci moom su fekkonte ne jikko mën da ko kon waaraate amatul njariñ su fekkoon jikko mënta soppiku kon àdduna bi day salfaañoo ndax ku ne xam na ne safaan baa ngi fi ne gadd waaye teewul ñi ngi jóg di dànkaafu ndax lu tax xam nañ ne jikko mën nay soppeeku léegi nag soppiku gi ak ñàkk soppiku gi mi ngi aju rek ci li li jikko di toog léegi nag kon nañ dem ci lan la jikko di toog jikko mi ngi toog ci ci ngëm yàlla dañu war a fexe ba nit ki gëm kon mu mel ni buñ doon tàmbali dugg ci suñu magi réew ñun xam nañ ne lislaam bi duggee ci siècle bu njëkk deuxième siècle lislaam ci la ci la l'islam dugg ci Sénégal defe naa kon ñun yàgg nañoo ak l'islam lool ñun l'islam benn siècle moo ñu ci raw Sénégal daal di dugg ci lislaam direct jot ci sunuy mag daal di adopté wu l'islam ci nu gaawit nag ci nu gaaw ba sax boo del boo delloo ci suñuy suñuy làkk sax suñuy sant sax niñ koy bind ay ba ka dangay gis ni ci làkku arab yi di jeexetale ndax lan xëewu sakkat yooyu ñu ciy dolli ndax dañoo yàgg ak moom te ku ne xam ne le lislaam day daa baaxoo diine la joo xam ne buy dugg day duggaaleeg daara lislaam jooju bi mu fi yàggee yi dafa indi ci ñun lu ñuy tudde jikkoy lislaam mu fekk si ak ceddo gi ñu amee woon waxtu wu ne damay wax ne ceddo du lu bon ku bëgg a firee ceddo ci lu bon rek yow yaay xamul li xew ak ceddoo mooy ak ngër mi mooy kuy bañ ku ko noot kuy bañ di wor kuy bañ a wax lu dul dëgg loolu lañ tudde woon ak ceddo ñun ñoo dem ba yàgg rek ñu mel ne ak ceddo benn affaire bu bu safaanu la fekk ceddo benn aada bu ne woon ci suñu biir boo xamante ne moom lañ doon utiliser pour bañ ko ñu noot boo nee ceddo dañoo bari woon xeex rek da ngay laaj ku ceddo doon xeexal ak luñ jote ñoom ñaar loolu lañu war a laaj moo tax ceddo googu yi dafa duggoon ci réew mi loolu lum ñu juraloon daf ñoo juraloon makaarimul axlaax mooy lan jikko yu sell jikko yooyu nag jural ñu ñu jur ay ay wàlliyu jural ñu ñu am ay wàlli yu mag Sénégal damay wax ne ñii ñuy tudde ay donga ay awliya u kumala lañ li firnde ji Cheikh Abdoul Karim yàlla na ko yàlla dëgëral damay wax ne waxtaan wi li tax mu njëkk maa mooy dañ ma cee dolli xam-xam dafa maa jox benn discours boo xam ne day discours bu am solo ndax ku ne xam na ne sëriñ Touba bi mu ñëwee du caagéenub dafay ñëw ngir doon woote sëriñ Touba mësta woote ndax woote andiwu ko fi moom li mu wax leer na damay taj di damay yeesal yeesal bi muy yeesal nag ku ci am rol da nga ñëw suyee si sëriñ Touba ñi ko doon wuy ñëpp yàlla moo leen di wool boppam ñu dem wuy ji kenn ku ci nekk cër ba nga ci am moom ngay suyee ji dinaa ci joxe benn misaal boo xamante ne xëy na du ma tudd tur ndax dafa xaw a compliqué waaye am na ci kilifa gu mag boo xam ne mi ngi fii ci njaareem téeñ bi mu daan téye da daan root ci biir kër sëriñ bi teeñ bi mu daan téeñ mësu koo dindi ci bopp bi da koo ca takk noonu rek ba ko ci ndax lan ndax saabu bu ñee root rek mu jóg ba benn bis ab kilifa geneen gu mag gu ñu xam ci Touba sax rawatina daal di ñëw ci sëriñ Touba ko diw mii day sonn na dama bëggoon nga seexal ko loolu rek laa lay ñaan waaye sëriñ bi xam nañ ku ne ci kër gi lu la tax a jóg ci noonu ci la sëriñ Touba ne ko li nga wax de rafet la waaye wool diw te nga ñëw yow ngeen toog bañ wooyee diw moomee diw ñëw waaxu toog ci wetu sëriñ bi sëriñ bi ko doon ñaanalu ceexi toog ci wet gi sëriñ bi di ko xool ba yàgg daan ko waxal la nga waxoon mu ne ko diw mii de damaa bëggoon nga dimbali nga dimbali ma rek te yàlla tax nga seexal ko ndax xam naa li muy daj ci kër gi sëriñ bi daan ne ko diw tontul diw moomee bis ba mu jógee ne bëri daan ak as seex ñu ne ko waaw mu ne accam di joxoñ penku bi di dem booba la dem ba kenn gisatu ko nga gis ne kon li mu liñ liñ ko bëggoon a dugal bokkut ak rôle bi ko indi woon ci kër Serigne Touba moo tax sëriñ Touba ñi doon ànd ak moom ñëpp kim seexal xam na li tax mu seexal ko kim wàcce noonu xam na li tax mu wàcce ko noonu kenn ku ne bu sorol jeexee dangay ngay dem Cheikh Mouhamad Khadi nag bokkoon ci ñi nga xamante ne jot nañ ci ñi Serigne Touba séqaloon relation ñu yaatal wote bi ndax lay firnde ja bul ko woowi ku ca bokk dana ñëw c'est important. bul ko woowi ku ca bokk dana ñëw comme sëñ Bay Jaxate dem na bëgg koo jëli sëriñ bi ne ku ca bokk dana ñëw moom mu ñëw kon day tekki ne dafa bokk ci mission bi nga xam ne moom la sëriñ Touba doon propagé loolu nag kon ban njàngat lañ ci war a jàng ndax it deret maanaam li ñuy tudde deret ju baax dafay dafay rogalaat yàlla nañu yàlla musal ci boo bokkee fu baax di defub safaan ña bokk fu bon di defu safaan ñoo la gën fuuf loolu na leer maanaam ki bokk fu sell di defu safaan daa mel ne ku jël deret ja di ko sotti ca soow ma wala yaasu billaah yàlla nañu ci yàlla musal moo tax dafa am foofu boo fa bokkee rek tàmbali ngaa sonn li ñuy tudde makaarimu axlaax da nga koy adopté forcément wala soo ko adopté wut jël benn référence ci ne bokkoon na ci ñu Sëriñ Tuubaa waajal ngir ñu ñëw kon manees naa jël ci moom ay tegtal ci jikko yu baax wax naa ne jikko ju baax li ci jiitu mooy gëm yàlla gëm yàlla gu leer mbokk yi lan mooy gëm yàlla nag ngëm yàlla yi xam nga sëriñ bi sëñ ma dikke dañoo bokk tem maak moom ndax bu ñu waxee ci ne mbokk la ñuy waxtaane problème mu àdduna bépp ñàkk gëm ko lal gëm yàlla mooy liy équilibré nit ci ñett yi yàq nit du ci dugg bi njëkk mooy ak rëy te rëy mooy lan koo gis defe ne yaa ko gën booy feebar bi nga xam ne danaa wax léegi ci kanam li muy tasaare ci àdduna bi bu ñaareel bi mooy xër xër mooy la ñàkk doyal lu jekk lu jekk ci àdduna nga ne dinaa ci am bu ñetteel bi mooy iñaan lu nit yooyu rek nga ne nangam ñett yii ku ne xam na ne ñooy cosaanu bépp ñaawteef ci kaw suuf ndax doomu aadama bi ko yàlla bindee da koo jox ñeenti melokaan daf ko jox li ñuy tudd sifaat sifaat ar rububiyatul xaasa jox ko lu ñuy tudde it sifaat an xayawaaniya jox ko lu ñuy tudde sifaat al sabaiya waaye joxaat ko it lu ñuy tudde sifaat al i'tidaaiya ñeenti melokaan yépp ñetti yee ñoo koy jur gis nga bu nit ki xësee ba xër maanaam ci àddina ne dama war a am iñaan dugg si na gis nga boo waree am ta amoo ko amati rek sab xol tàmbulee tàng feebaru iñaan dikk na mbokk yi ku bëgg jikko ju baax li ngay njëkk a xeex kon mooy iñaan génn ci yow te iñaan da feebar li garaaw ci iñaan mooy mën ngaa bañ a iñaane kenn te yor feebar bi ndax yàlla daf ne wa min sarri xaasidin ida xasada ismu faaxil ju songu fi'lul maadi kon wane na ne nit mën naa iñaan te du jëfandikoo iñaan gi ndax feebar la waaye nit mën naa iñaan te tey jëfandikoo iñaan gi léegi nag ñi iñaan tey jëfandikoo iñaan mooy koo xam ne mbir mi damaa naqari lii teraanga ji yàlla defal diw dama naqari nga tàmbulee jóg nag ci lu ko yàq jóg jëm ci li ko yàq nag loolu mooy isaa xasada moom xaasidin mooy yëg bi ngay yëg ne man lii neexuma te daa nga ji ko yàlla defal daal yëguma ci mbég waaye isaa xasada nag mooy jóg ji nga jóg pour jéem a gàllankoor teraanga ji yàlla nañ ci yàlla musal